ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوى الغر الميامين يسرني أن أتمثل باسم اللجنه التي يترأسها صاحب اللواء حامل أسرته فخر أسرته حاج إليمان إبراهيم حلمان ساحو وجميع معاونيه wa ala wajhil axas xalifatana al abar al xalim saaxibul xilaafati xilaafati waalidihi wa xilaafati jaddihi daaka xabibu waalidihi xabibu usratihi abi xabibu ashiratihi innahu xabib ibrahim حين من سار وحبيب الأحباء باسمهم جميعا ñi ngi wax mbooleem ñi fi ñëw ahlan wa sahlan wa marhaban du ngeen dellu mukk ngir dañ leen bañ a ubbi ndax wa in qiila lakum irji'u farji'u gannaaw bu ngeen dóoree ñetti yoon yàlla nee na ku fi jot seeti ñëw ci buntu kër jàmbur fëgg ñetti yoon te tontuñ la ñibbil ma ne yéen du ngeen ñibbi ndax awaa ngeen di agsi ubbi nañ bunt yi loolu nag mooy ñi ñëw waaye ñi dëkk comme saaxibul liwa liñ ko waxee xaadimu usrati xeliman ne ñoom waa Ngapparu ci seen bopp la ñuy jàppale ci seeni gan kii tëdd fii fa mu juddu ak fii xam nga ñaata kilomètre bëgg nga ko xam di nga xam ni himma rek a am solo fa mu juddoo dëkk bu ñuy wax Maabo la Maabo ak Ngapparu 137 kilomètres ba mu juddoo ak bi ñu ko denc xamoon ñaata at ndax la nelaw 1948 déggoo di am xam-xam moo la kooku mooy doomi jarga woy juróom bu jigéen Fatimatu Darame Barame baayam bu ñuy wax maam jarga moo ko jàngal alquran mu teel koo man nag ba dañ ko doon nëbb wax nañu ne am na bés maam jarga ñu ne ko daal sa doom ji ni mu mel ci alquran ëpp na ndekete dafa romb marché bi ñu téye ko ngir tuutaayam di ko jam muy tari ba ko góor gi yégee keroog dane ko loola bul ko defe ci mukk ñaareelu loxo ki mu jaar ci xam-xam di jaayam la ndax mook Fatim Taala ñoo bokk ndey baay mooy baayu Mamadou Dramé ma ca Thiassel Côte d'Ivoire waaye nag dañu bëgg xam-xam gannaaw bi mu ko doon ne fu ne mu dem fa uti fa xam-xam waaye uti lu baax dem na dëkk bu ñuy wax Ndar jàng na fa Mbàkke Kajoor jàng na fa daaray xaali Amar Fall ba jàngee na fa ba axiiran nag mu faf la mu doon jàngee moom mu koy jàngale faf xaj yi man moo tax bañ koy wër ba fekk ko ndar ci kër Ibra Seck góor ga ko jël si woon dana ko moom lañ lay doyee Saalum rek moom ngay def fii kon jarul ngay dem toogal di doomu yaayam di borom jaamal kooko nag dëkk yu ne xam na fa ci njàng waaye ak jaamu yàlla waaye bu mujjee nag waa nga poro mujjee ko kon ñoo am bénéfice ñoom su bénéficié parce que lu ñëpp bokk na nga fexe ak yi moo ko tabaay bu saako nee na waa nga poro bu yow mal xiyaamate su ma bëggee gis sama baay damay laaj waa nga poro fu ñu ne ndax kenn ku ne ak wala ñenn ñu ne ñañu suulandoo ñooy dekkoondoo te ñooy bokk kampi boo weddee lu ñuy wax nga dem arafa ba mu ngi seet ñu la rek laajal gars yi fu ñu par camping camping la numéro yi noonu lay demee nee na bu bëggee gis maam yi li man dana na waa ana ngapparu fu ñu bu fay dem di gis bàyyi ngapparu waaye nag góor gi kaay ma wax la ñëwul rek waxoon naa ko gàcce ngaalaama arbauna al muqaddimin ñi nga xamante ni Cheikh Sidaay Malick sélectionné woon nañ leen gannaaw ba ñu mënee la ñu mën ñu dem ci jawaanib al uxra yoo xamante ni gisuñu ko ci téere yi mina jawaanibu ruuxi wal kahrabai wal ijtimaai ba pare ca ñoom kenn ku ne dana dem leen defi Maodo comme man fu fi waay dem na defari xam nga looy def defaral jàkk utal lii ñuy wax daara utal tool defaral nit ñi nag ma ne bu taxawee ba rendre compte moom taxaw oowaat mu xaddamoom yooyu yëpp kenn ku ne ne andi leen ma résultat lu ngeen def maa mi limaan doy na ko sëkk bu àggee tiitër mooy ni man maa defar sénéralu tariqa ki ñëpp xam ci xilaasu saab mooy Hadj Ibrahima alal buraaqi sara fi muntahi lahumu heure bii jaar xilaafu li ma bëgg xam mooy rajo la côté bii mi alal buraaqi bila xilaafi wa fi muntaha jaar xilaafu xam naa sax loolu taxul a jóg waaye dama lay conseillé mooy góorgóorlu uti piri dem jëndi ay téere te préparé ñi meeg dëñe ñi meeg fanaan biti ngir xam-xam tëyër rajeex ju lëkkut bi yi mi moo ñetti ñoo xam ne ñoo départ doo ci voyage te ba ñuy wax fin ba kenn rek lañ cité kon musiba am na mu tasara rañaan na xam nga araba riche noonu man soo boo gisee sara mu ngi mel ne xarima rek zaara nag aqbala saara yooyu yëpp ñëw la waaye bokkul dem it mën naa ne benn ku ñëw ànd ak daayira ci xadara bii tey bokkul ak nga ñëw yow kese bokkul ak nga ñëw war bokkul ak nga ñëw nga dox guddi loola nag richesse su naar am na ko ak i mufradaata benn bu boo ko waxee ñu xam ban nga jëm waaye fii fii xadara bii maa ngi limaan bàyyi nga xam nga kañ lañ ko dencoon fii ak tey ñaata la def xilaafa saña bi bii ñu ñaan mu puus ko mu jëm cent ñu ngi ci soixante-six ans ba mu demee léegi juróomi xalifa ñoo ko séddoo kër njëkk ñëw abu bikrin la tudd ñetti at la jël boo amee ñetti cinquante et xam nga ko mu jox waaye bi ray ki kenn dul laaj nag te waxoon na ni man bañuma sax ñu may tëkkaale nii waaye fexe leen fexe ba ki ngeen may tëkkaale bu mu yëg ci càkkaaba ku ñu defal promotion ba pare ñu naan xalifa diw moo tax waa ji nee nag Senghor ba mu fexee fexe jéem ko waxtaan ak moom ci xam-xam dafa jékki ba mu yàgg yëf yi jaaxal parce que dana ko alaaji seen journée bii buur leen di bii il faut ñu changé ko parce que jàngu bi ci ñuy liggéey te sax yéen alaaji bu li ma jaaxal mooy yéen normalement vendredi ngeen am ndekete ubbi na gàmmu ci biir palais bi nag wóor gi ne ko mu monsieur président kaay ma wax la ñun suñu waa sax sax ndeke moom moom leen di ndax ci juddoo ci lañ ko yónnee ci la génnee Màkka ci la jël soxna ci la duggee Madinatu Munawwara ba yëf ya bare nag président Senghor ne ko mais damay laaj vous êtes remplacé de kii <laughs> sama yaay booy Amadou na sama maman dafa sañ sa tey de ah sama yaay ma jóg dama koy jaay jóg bi moom mënta ne nii baax na xam nga sëñ bu yebu ngeen di ko ñaanal ma wax leen wax naa ko gars yi de sëñ bi sax laa ko njëkkoon nee naa ko boo gisee sonal ci wàllu lu bari pour laaj la maal parce que am na kuy dox ci sa ginnaaw di bay bayum suuf. tax man wax naa la neexuma neexuma entretenir boo ma gisee sax xam loolu xaaj Jibril loo ci mën a dégg daal bu dee kontaan ngeen ma dem ci xilaafa gi te ñu tëj ko parce am na ñu may xaar fële. cinquante ans laa waxoon la góor gi jël ñetti at rek la jël xaaj Ibrahima ñëw. roof xam nga ñaata la def yal na Habib am yu toll noonu 43 saa jël ci xilaafa bàyyam gi 66 yi doxal ko fu ne nag ma wax la ñi xamuloon maam Ilimaan ci biir dundam sax xam nañ ko grâce à Alaaji bàyyi boo ñu nettali kenn waxuma riwaaya de amul an ana moo wax ni maam Ilimaan xëy na suba dem Tiwaawan ñibbi si waale andi sëriñ gu dul jeex ne mu ne ko góor gi lii nag mu ne ko ci sa barke laa demee tey parce que dama dem ci kaaru ngoon yëf yi waaje tëj bi yee amul benn waay xàmmee ma mooy waajur alaaji ñu may ma ne góor gi ak yaa tax mën a gis góor gi tey ba muy dund ak ba muy dem waa nee na ma 1945 gis góor gu bëggee noonu ñun ñoo nekkoon ay jeunes demoon ca gaar ba doon teeru ji alaaji di sikkar nee bi ñëwee ba Marina ba góor gi gis ñu def nii ba seen yi ñuy sikkar mu gis alaaji bu ci kanam ni mu dawee kenn xamoo ngir kontaan ngir bég ci moom ndax doom juy bégee baayam ak koo xam ni moo yóbbu baayam Senghor ba mu sonnee dana ko gujjee remplacé di kii parce que moom ñi muy gis yëpp ñu koy présenté ay xalifa diw la ñuy doon te waa ji gisul ku ne ci gannaaw bàyyi bi sax sonnul ci ne ko maam Ilimaan la muqaddam Cheikh Sidi Ajmaay la dana ko déedéet yëf ci te rek le président fii nga toog nii ki nga fi remplacé bokkoog moom dara belees bokkoog moom yitte rek moo la fi teg bu laaj sama bàyyi yàlla boo ko jël nag 43 43 plus 3 muy ñaata 46 yu jëm 66 lu ca bu ngeen mënoon calcul man te mënu leen a saraxe dañuy subaa ndax bi rek. ah. 30 ki ñëw na ku lewetkaa ñëw nag rakkam ju baax ni nga xam ni boo duggoon ci abasa fekk ko fa doo ko xàmmeeg taalibe yi mooy takk ndigili wékk ko mel ni koo xamante ni ci biir taalibe yi te xaqal nag ci taalibe yi la bokk moom moo ma nettali ma wax la waxuma an ana de dama yàgg sob te mën a waxtaan bàyyi ëmmat moo ko wax ne ko waaw góor gi sa kii bi mu ne ma gis nga man ko ku ma jox salaatul faatihi li ma ughliqa sa baay moo la ko jox ndax ñun ñaar la seen maam joxandoo benn bés salaatul faatihi ma jóge fa dem arame nag yàlla nattu ma yëfit bu ne ñimew ma àgg si seen maam ndax dañ ko ragaloon ma ne naa fa yem ci sa baay moo ma yeesal ca jamono booba seen baay di dund ma wax la booba mu demee it mu defaat loolu kooku moo remplacé góor lewet lool baax lool nekk waliyu waaye uufoon njaboot gépp nag du meer a kenn xamadu naa quinze ans lay nag yaa dem de loo waxoon cinquante six plus ñaata quarante six nga waxoon plus quinze muy ñaata soixante et un nga jëm nag bàyyi xaaj ba doo ñëw aalifu rabbaani ngoog nga xam ni dëkk yëpp foo dem dina la ne bàyyi ba nu jaar na fi buur xam-xam ba ca Côte d'Ivoire aalim boo gis mu taxaw dina la ne maag moom mas nañoo bokk daara kan fóore bu mar bo këjël turandoo ci xam-xam waaye lewetam nag ci Seydina Ousmane moo ñëw jël fukk waaye nag jox ki nga xamante ni toogul woon papa loolu maa li maram xarit sëñ Bamba ngi nii mu ñëw jël fukki at Baye Alioune Badara ca xam-xam ba ba ñu xamee xam-xamam pire ñu ngi ko xam bés bi nga xam ni Baye Alhaji Ibrahim dajale na Sénégal yépp mooy alquranul karim bi nga xam ni moom la doon firi ñépp war a ñëw bi ñu taxawee ba taxaw mu ne na ko Badara def Alaaji Abdoo ngi fa xalifa Njaasaan ñépp nga fa Baye Badara nag ci minute defar na lii nga xamante ni mooy xutba mi ci tali léegi arab yoo xam ni ba mu paree sëñ Abdou dafa ne xawoon nañoo mën a bañ wax ni Badara arrêté ngir arab yi ñu dégg kooku kat doy na sëkk ñu wax la ne la bi mu fi jógee ci njaboot gi diggalu sëñ Paab sëriñ Habib moom lañu ñu gisoon ni moom rek moo mën a remplacer ca université bu rëy ba Hadji Ibrahima mu ngi cee déen ma dama bokk foofa nag wax na ma la kon loolu ab lébu la moo fa ne woon fay amul kenn santiirul daal ba ñu dem nag jox bàyyi alxaj tafsir mi nga xam ni nekkal amin fii ci ne woon na ca gannaaw di nekk xalifa en même parce que ñoom ñëpp kenn ku ne loo cay mën a def moo la koy defee moo la koy doxal ba defal la loo yaakaar woon ni lool moo tax yow man anta wala xilaafa bari woon sax lu mu fiy def xanaa yeesalaat waaye tey jii ba changé nag lii nga xamante ni mooy xar kanamu ngeekoo waaye du ngeekoo sax nga laa bëgg a wax lii ma yor nag ab leetar la buy wane diggante nga paru ak maam iliman waxoon maam iliman rek de waaye diggante nga por ak tund bii ñi nga xamante ni noonu la maam ilimaan yóbboo leen géew instance ba gën a rëy ci diini ji ca jamono booba mooy bu mu jógee ci Cheikh Sidi Hadj Malick Cheikh Sidi xamoon na personnage yi nga pour yëpp grâce à maam ilimaan yemul ca de ba mu fa jógee yi doomam yëpp kenn ku ne xam na ñi yeewoo nga poru ak kenn ku ne li ngay def ngir taalibe waaye ngir daara borom xilaafa gi suñ Babacar Sy Mansour ayyadahu llahu wa nasarahu suñu sëriñu baay ba moom mi nga xam ni it waxoon naa ko moo favoriser bu baax ndénkaane bañ ko joxoon alanan mooy ba yëfi bay tafsir topp ko ngir li ko bàyyi alxaaji Abdel Aziz waxoon mu doxal ko nag mu waroon a doxee lettre bi may wax yor nii nag ci ndigali Serigne Ba nga xam ni moom lañ ko jotee ni kon yàqu na kii am na quatre-vingt-onze ans ren ma wax leen ndax mille neuf cent trente-trois may wax ak yow sa turandoo moo ko bindoo Hadji Mansour booba mu nga muur di wax nag ni bëgg na ñëw ngàpparu jaare ci maam Iliman pour siyaare waa ngàpparu déglu leen bu baax nag seen maam yaa ngi ci biir moo wax leen xam nga lii bu fekkoon ni Badara ci waa ji nu mu def ci Cheikh Abdou juune na ba ñu ñibbi te liiruñu ko dina ameel nga paru yépp xaq maa la wax lii ma la wax Baye Ibrahima Ndoye maa ngay liir leetar ba nag bismillah góor gaa nga mbuur leetar bi xam nga kañ la woon dimanche 7 mars 7 mai 1933 maa la wax nee naa la mu nga ca quatre vingt yu toftal huit mois ak sept jours tey mu ne daa xadati Seydi Iliman Sakho wa njaw yum góor gi njaw yum dégg nañ ko fi bataay doonte xamuñu ko ñun dégg nañ ko si suñuy baay chef de village góor gi xam nga njaw yu waaw kay baay baay baay paata mi wax na ma ci baay njaw yum ndeysaan yu bare bare wa wa wa wa Taala Njaay wa alaaji ale Njaay ale Njaay wa aaje naka wa xaaji wa xafaja fay wa xafajan fay Moussa Ndour Sidi Mor Gueye Abdoulaye Wade la zaalu fi xifdi mawlaahum alxafiir wa ridaahu salaamu alayna wa alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu déglu fa mujibuhu min nii ak dégg arab mooy suñu sëriñ bàyyi ngoog xam naa tatamata insha allahu waaye fi ma baax laa bu daan nataraa fa mujibuhu min nii ilaykum yalihi al i'laam أني قد أتيت هنا بقدرة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وقد ورقت li ziyaarati al ixwaan wal axawaati turran faqat laa xayr ci gàttal daal mooy bëgg naa ñu nga toll xamaguma nag dëgg dëgg ñaata temps laa def pour wax leen kañ laay ñëw foofa waaye waxal ma ñii ma la wax nii ne leen dinaa ñëw léegi nag toog na fa ay fan ba assuré ni war naa ñëw nag xoolal lii mu bindaat ci gannaaw fa li xadatil iliman salaamun wa duaaun aamun يزفها زف الهدي إجلال وإكرام فموجبه مني فموجبه منه إليك يليه الإعلام أني قد أرسلت إليك براوة حين وردوني في قرية مود والآن قد عزمنا على القدوم إليكم يوم الاثنين إن شاء الله دين ولتخبر ذلك جميع الإخوان لا ينقب اليوم na ko ko yëgal góor gu ñu wax Aala Njaay góor gi Aala Njaay Sakho moom la góor gi tuddee woon day saak bàyyi aale waliyu ba bàyyi aale aarif ba ar nga xam ne bu ñëwee boo ko gisee léegi ba la nga koo gisati dina yàgg dana wax ne ba mu yàgg na wax Sega alaaj Sega commencé koo gàmmu di Maodo day loolu la ko daan wax waaye yéen gàmmu yomb na ne fexe leen ne nettali rek àlla waxee alaaj yi bu rek moom loolu la daan wax day far xanaa seen xanaa commencé ku doon gàmm ma ne ko góor di. su da ngay réer day bëgg dee. mu ne tux bi dalika jamil ixwaan ka njaw yum wa aali njaay mu yaa iliman saaxo balleex ilal xaaji abdallahi booy somon génn naa nga pour nag dégg nga abdallahi jéen njorox wa ahmad salif jóob ngeexoox ñii wax leen ne leen dinaa ñëw ci ci ci ñëw neefar baa ngi nii lii nag in dalla ala shay'in fa innamaa yadullu ala bee maada lii nga xam axakay ah, fii lañ koy dagg sëriñ parce que dara dafa ñëwagul ba mu bëri gars yi dañu concentré wu rek ne dañ <laughs> ko tàmbale naam ma ne nii bi kulli ixtisaar Jibril moo bëggoon ma continuer ñu ngi noonu di la bàyyee di ñaan 76 yi dañu bëgg incha allah koy ñaan ma rek incha allah ñu ngi koy fi ne mboolem koy joxoon moom moo koy ñaaf ñaaf moom bàyyi ba dara tabarkàlla kontaan nañu rafet na waaye nga por wi gërëm baat ba day baaxaat xam nga ay waxtu suuf day tingoom seede ba kii démb bi ma liiree leetar bi laa ne sëriñ Pape man day lii laa xalaat ma jàpp kasu rajab bi ar rufaay Mbàkke ma gis ko muy liir leetaru sëriñ Fall xadiman ma ne man ndekete man la ma waxoon dëgg la ndekete benn bu ne dinañu seet munaasabaat yi ñu di ko def waaye sëriñ Pape dafa ne woon nag bi kullil ixtisaar ñu fàttali suñu bopp fàttali leen ni soxla nañ ko toujours soxla nañ ko fu nekk mooy jàmm waaye tey lañ ko gën a soxla nag aykat jërëjëf tey jii dañu gën a soxla jàmm yàlla ci boppam nag moo ñu gën a bëgg jàmm ndax faf sax dafa coppati ci tur ya mu am benn tuddee ko boppam yemu ca nag diine jii ñu jox mu tuddee ko jàmm yemu ca ne dee leen ko jonjonte bu ngeen rombante koo xam ne romb nga ko mu ñàkk xam bay wax wax yu xamuwul ne ko jàmm ba pare nag organiser jàmm ji nuyoo bi na ko ba fi mu ne ko armée moo war a nuyu ko armée wu ma wax la ku parce que moo ko gën a jekko moo boo waree ki toog ci suuf yaa ko war nuyu bu ngeen dee mbooloo yéen a war nuyu ki nekk sël parce que ki njëkk nuyoo te yor arme day ni gars yi kat xel mën naa dal ndax ñun malgré tout notre pouvoir on est là dañuy woote du ñu làppe kon ndekete jàmmul commencé wul ci suuf ca kaw lay jóge di wàcc sëriñ bi nee na li muy am lu mu leen di wax mooy jamono bii ñu ne nii jàmm ji nañ ko defante suñu ne nañ ko defante suñu biir waaye seen ñëw fii seen daje fii nuroo na ni dox ngeen jàmm parce que yonent bi kat sayyidul mursalin waxoon naa la ko waxoon na ni jàmm bi ci gën a tuuti gën caa tuuti gën caa ñëw te yàlla di ci fay lu nit mënta xam mooy sourire bi ngay jox sa frère parce que day dal xelam xam nga jàkkaarloo yow nga daal di kii noonu rek fekk boo demee sax dañ la dañ la merloo soxna see la merloo waaye yàlla nee na boo dajeeg waa ji boobu nga koy def kese day dañ cëy bindal baak tiyaaba seen ziyaara bi it ngeen ñëw it dañ leen ciy bindal tiyaaba yàlla ñu yàlla fayal suñu mag ñi nga xamante ni ñooñu bàyyi lekk bu rëy bii defaral ñu ko nii ba mu jekkee nii yàlla mën na ko am na ko yàlla nañ ko defal waaye nag lii nga xamante ni mooy suñu xalif bi kon ni ko sëriñ bi ñaay suñuy xalif yi ñi nga xamante ni bàyyi bu sax waxoon na ni bu fi kenn kuyoon kuyoon képp ku la boot di xeex fexe la fexe ba di ko ñaanal ñu bañ koo daan parce que buñ ko daanee yow ñaara lay war moom kenn koy war ñoom ñoo ñu boot ñu fi dem moo tax gars ñu ñu gis.